bismillahi wa ala millati rasuli wa manhajil qadim toujours ñoo ngi ci alphabet gu arab bi maanaam ñaar fukki xaraf yi ak juróom-ñett ku tedd ki ni mu koy def ak xaraf wu ci nekk mbóot mi sirru bi waaw ni mu nu ci tasaare ni mu nu ci tasaare lee yërmande yërmande ji ci nekk ak leer yi ci nekk alif bi génnoon na nu waxoon ci li nu ci wax baa bi topp ci alif ku na xam na ni benn la baa ku na xam na ni ñaar la moo tax ma ni bi baa doonee ñaar doon zahir ak bu dul ko nag li muy feeñ dama naan mooy borom kun yàlla moom turu zahir moom moom woow baatin baaxe ka mu yónni kun moom it mu joxaat lu kun ku tedd ki laay waxal yonent bi joxaat ko ku tedd ki ndax kun fay kun bi bam sachin baa di asamaan ak suuf tey guddi tey bëccëg guddeeg bëccëg ku ne xam na ñaar la Hmm? ndax da nga ni guddi ni bëccëg ku na xam ne ni ñaar maanaam ay symbole la ay rumuuz la yoo xamante ne bi dafay dañ ko dama koy interpréter moo tax ma koy waxee ni baa di asamaan ak suuf tey guddi tey bëccëg di leer ak lëndëm moom baa tey ñaar foo ko man di fekk ba tey mooy kaw mooy suuf doon biir tey biti nekk yi ñuul mbaa muy weex mooy tibb mooy sotti di ndeyjoor tey càmmoñ doon kanam tey gannaaw di dijji mbaa muy sew doon luy dox mbaa muy naaw maanaam lii yëpp liñ ci jublu ay interpretation la ku ne kaw ak suuf boo nee kaw ni suuf rek nee nga ñaar moo tax ma ne ba tey mooy kaw mooy suuf doon biir tey biti te boo nee biir ak biti nee nga ñaar mm-hmm. waaw ñuul mbaa muy boo nee lu ñuul boo nee ñuul ak weex ne nga ñaar mm-hmm. <laughs> nekk ñuul mbaa muy weex mooy tibb mooy sotti boo tibbee itam boo nee tibb ak sotti itam ku ne xam na ne mooy ñaar waaw di ndey joor tey càmmoñ day joor ak càmmoñ ñaar ndax boo ne ndey joor rek benn la boo ne càmmoñ rek benn la waaye boo ne di ndey joor tey càmmoñ kon tudd nga ñaar mhm. doon kanam tey gannaaw itam noonu mhm. waaw di dijji mbaa muy sew noonu di jëg sew ñaar la mhm. waaw doon luy dox mbaa muy naaw itam <laughs> ñaar la baa day dëgg guy war fen boo ne dëgg ak lu dul dëgg rek nee nga ñaar ko waaw baa day dëgg guy war fen néew fas di ko dañal baa mooy taxaw te mooy toog te mooy fetal te mooy bal waaw fetal ak bal ku ne xam ne ni ñaar la boo nee fetal benn la boo nee bal benn la boo nee fetal ak bal kon nee nga ñaar mooy ndëfee naay di jaaxaanaay jaaxaan ak dëfeeru mhm. bu ne ñaar la ndax tudd nee nga jaaxaan nee nga dëfeeru waaw mooy ndëfee naay di jaaxaanaay baay mooy tëdd te moo di jóg moo di nelaw moo di yeewu moo di togg moo di yekk mooy lu rafet xam lu ñaaw te koy moytu loo mbindeef waaw mooy lu rafet xam lu ñaaw te koy moytu loo mbindeef dafay ñaari turi yàlla moo di lekk moo di xiif baawu bàmba moy bu bismi ndax sirru ba la doon ni mu doon ne al quraan ak kun fa yakunu wasalaamu ala man itabaa al huda